nañ ma yëre yu ñuy sol xam nga c'est chez eux aujourd'hui rek j'ai vu à la télé ah ses œuvres avec ah, ah MSAD la manufacture des arts voilà donc mu nekk lu am am solo ci dëkk parce que l'art moom ah, ak la tradition dañu dañu am suñu culture bopp comme dañ ko wax culture et enracinement donc tout ça il faut jeunes yi aussi ah ñu s'atteler à des métiers comme ça pour vraiment ñu def consommer sénégal ak développement entrepreneuriat. féminin surtout ça man je parle du genre voilà il faudra que jigéen ñi aussi parce que yu mel nii mën nañ ci fexe ba nga xamante ne nii seen petites et moyennes entreprises parce que maman yi dañ ko daan def am benn métier tricotage wala truc suñu paree ñu jaay ko yëre yi ñuy sol nga defar ko sol ko ah ñu jaayante ko suñu biir ci groupement yi c'est très important. ñu def comme ni ngeen def tey ji ah, jóge de partout du Sénégal venir ah faire un atelier de batik avec euh, le professeur Jo Mansour ñu koy ñaanal rek ah yéene bi mu am ci Sénégal ak la jeunesse mhm. yàlla gën ko ko yokkal et puis euh, autorités yi jàppale ko surtout ça parce que mi ngi def liggéey bu am solo maa ngi interpellé ah non gouvernant local ñu ñëw jàpp ci liggéey bi parce que entreprise bi war nañ ko développer une école de batik boo xamante ne nii xale yi nañ ci mën a jàng surtout jigéen ñi nga xamante nii vraiment amuñu chance su continuer seen études yi et tout ça là euh, mm-hmm. am solo. maa ngi tudd Zo Mansour euh, di artiste peintre décorateur designer. di professeur de batik fii si Thiès euh, di doomu Ndakaaru di doomu Thiès di yëngu si batik bi plus de vingt ans. tey ñu nekk fii avec les mannequins euh, je dirais même les mannequins du Sénégal ñu jóge Dakar Mbour Saint-Louis et Thiès ñëwaat encore une fois à Thiès euh, yàlla mayoon ñu la possibilité avec l'agence nationale de la euh, maison de l'outil di leen remercier de passage Maodo Malick Mbaye ñu mayoon ñu formation bu am solo tey mannequins yi ñëwaat encore une deuxième fois pour que ñu mën a continuer processus bi parce que dañu ne former nit am na solo mais li gën a am solo aussi mooy euh, suivi bi donc tey moom lañ dem def euh, yàlla defal ñu ci jàmm euh, parce que lu tax mu am solo mooy tey mannequin yi seen bopp ñoom ñoo décidé ñëwaatal seen bopp kenn financé wu leen kenn joxu leen xaalis kenn joxu leen dara mais ñoom seen bopp ñoo décidé fexe ñun ensemble ñu wut ay moyens yu ñu defee programme bi donc yàlla may ñu la possibilité euh, ñu am tout le matériel nécessaire euh, avec euh, Kadior Art comme ni ñu koy defee saa su nekk ba ñu mën a def lii donc tey damay wax ni sant yàlla la donc xéwal la donc di ñaan yàlla encore une fois lii mu mën a continuer di lancer un appel di lancer un appel parce que tey c'est des jeunes fii ki sont la yàlla may leen amuñu chance am métier amuñu chance am diplôme mais ñoom elles ont décidé de suivre ce métier ci un métier très intéressant moo mun la jëriñ mun la dimbale ba ëllëg euh, yaakaar naa ni boo fajul soxla nit ñi mën nga si faj say soxla donc euh, vraiment kontaan naa si ñoom en tant que formateur euh, di remercier de passage waa FAFS ndax bërëb bi ñu fi ñu nekk nii di liggéey ñoom ñoo ko moom ñu mettre ko à notre disposition donc di lancer un appel à toute la jeunesse sénégalaise di leen wax nii Euh, nañ jug wuti xam-xam parce que xam-xam c'est important euh, di di di woo waa Thiès di woo les autorités parce que li ñuy def nii ñu ngi koy def sans moyen mais alhamdulilah on a réussi à le faire avec les moyens de bord donc euh, ñu ngi pare encore une fois pour relancer le programme dans d'autres régions actuellement ñu ngi xalaat la région de Saint-Louis parce que foofu am na solo trop avec les migrations clandestines bi nga xam ne tey mu ngi fay xam nga gën a avancé jeunesse bi di dem si géej gi di rey seen bopp donc je pense que tey suñu déplacé woo dem foofu permettre à ces jeunes ñu am métier ce serait vraiment intéressant donc euh, may gërëm encore une fois say latir euh, bi ñëw chaque fois di ñu accompagner si li ñuy def euh, di remercier képp ki nga xam ne rek vraiment mës nga dugal sa loxo si programme bi ba mu egsi fii donc euh, maa ngi sant yàlla bu baax daal vraiment c'est un grand plaisir encore une fois comme ni ma ko waxee woon sa del benn ba euh, retrouver waat issi avec les mannequins yi nga xam ni ñëwoon nañ fi euh, deux mois ci ginnaaw ñu nekk ak ñoom pendant une semaine à l'hôtel résidence La Dior Maodo Malick mbay jàppale leen jàppale bu am solo loolu moom vraiment dañ koy rafetlu di ko wax saa su nekk parce que loolu c'était pas trop évident nga jël ay nit héberger leen restauration et tout pendant une semaine donc loolu damay faral di ko wax saa su nekk euh, dañ leen di ñaanal bu baax a baax di ko ñaanal Maodo Malick mbay di sant yàlla bu baax a baax euh, di ñaan yàlla nag lii mu bañ fi yem donc chaque fois ñu koy def si programme boobu la ñu nekk fexe ba chaque mois ñu daje fii à Thiès avec tous les mannequins du Sénégal xam nga ñu ñëw fii xam nga ñu jàngal leen li nga xam ni moom la ñu xam di si tedd di si jëriñu di si am suñu teraanga àdduna euh, ñu partagé ko ak ñoom ba yàlla suba mu mën leen def ñoom tamit ñu nekk ay leader ba mun si permettre ay yeneen doomu aadama aussi ñoom aussi xam nga ñu mën a jàng métier bi donc ñu ngi leen di santi di leen gërëm. Je me nomme Fatima. Je suis mannequin de Dakar. suis là aujourd'hui pour la formation de Tonton Perjo qui nous a donné l'opportunité d'assister à cette belle initiative. Il y a tout, il y a, il y a beaucoup de mannequins qui sont là, les mannequins de, de Mbourg, de Dakar et des mannequins de Thiès. Même il y a, des mannequins de Saint-Louis. Donc je pense que c'est c'est pas une bonne pas une petite idée parce que qui regroupe des gens, c'est une belle initiative. En plus, ça parle. Le batik, c'est une histoire que, que nous les jeunes, nous ne savons pas. et il est temps qu'on le découvre. Pour les mannequins qui veulent le découvrir. Et nous, on est prêts pour le découvrir. C'est pour ça qu'on qu est là aujourd'hui pour, pour faire le travail comme il nous l'a bien demandé et tout. Moi, je suis honorée d'être ici. Je, je, viens, je viens, je viens hier soir, mais j'ai appris beaucoup de choses parce que le travail, c'est dans le rigueur, dans l'ambiance et dans le respect. Qu'on euh, on ne peut rien dire. Tous les mannequins ici, que, que ce soit les mannequins de Dakar, de Thiès et de Saint-Louis, on est fiers de Tonto Jo et on est prêts pour les accompagner jusqu'au bout. Parce que je pense que il veut juste nous, nous, nous, soutenir, nous montrer la voie pour que demain, demain, on aura beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de métiers, autant pour moi, pour, que, pour, pour les gens qui, qui sont des étudiants ou des gens qui sont des élèves. on a l'opportunité d'avoir un autre travail qui ne sont pas les études. on va juste les profiter et de les, de les, soutenir en fait, de les soutenir. Les autres mannequins qui ne sont pas ici. Et je, les donne une conscience après pour, pour venir faire cette, euh, cette formation parce que on peut même apprendre à notre mère, nos grands-mères, même si c'est pas pour nous, mais pour Pour eux. S'ils n'ont pas le temps, s'ils n'ont pas le temps de le faire, eux pourront le temps de le faire, tu Parce que c'est un travail. Du coup, j'appelle tout le monde, les mannequins hommes, les nouveaux, les oncés, travail, genre, travail de dire quoi De dire en plus de, de, de, du de maguette. Du coup, beaucoup de gens qui c'est de ñëpp quoi mun nga si c'est de ñëpp surtout sa famille. Euh, ce qui m'a poussé de faire le batik. bon moi personnellement j'aime tout ce qui c'est l'art. C'est l'art, c'est l'art qui peut nous, euh, c'est l'art qui peut nous monter dans un niveau qu'on ne sait pas. C'est pas des choses comme genre les Vuitton, ce genre de marque. C'est pas ça, c'est pas de l'art. Et l'art, ça parle, tu vois. Pour moi, je pense que une personne, personne surtout africaine, une surtout africaine, il doit soutenir toujours ses valeurs. C'est ça qui m'a poussé à venir ici. Mes remerciements, je les dédie à ton toujours. amuñu fayam ko amuñu fayam ñun mannequin yëpp parce que boole ay xale yoral leen seen lekk c'est dur c'est dur vraiment on le remercie au fond du yàlla bàyyi ñu ko fi ba liggéey bi dem ba ci kanam ba ñëpp ñëw si la ñuy xam lan mooy njëriñu aar ak batik